mu des deux cent soixante douze waaye ñoo ñuy wàcc yëpp ubbiwuñ bunt bi rek bàyyi leen ñu génn ku ci nekk sa dossier dañ ko càmbar ba tax ñu war laa bàyyi mais deux cent soixante douze yi war nañ leen wacc wàcc ñi nekk bitim réew te ñu lancé leen woon mandat dara international ñooñu ba tey dara dañul ci seen dossier dañuy continuer di leen topp Jomaay ak Sonko ndax dinañ génn mu ne bu ñu génnee daal dinañ bokk ci dialogue bi Aïssata Tall Sall mu ngi xibaar waaye réew mi ne leen mosu ñu fee jàpp nit dugal ko ci Euh, kaso mag ñi fekk xale la mineur affaire yooyu waaw waaw Khalifa Babacar Sall candidat euh, taxawu Ndakaaru dañ koo gazé ay gaz lacrymogène te Yoff démb Toussaint Manga Ngor la doon liggéey en tant que médecin chef dàq nañ ko fa mu doon liggéey gannaaw ba mu tëddee kaso ba génn wallaay wallaay étape Sénégal waxtaan nag tonnikatu mbalit yi ba wax neen ne dana faase li nekk ci kay bor yi quatorze milliards yi ba ñooñu dinañ tàmbaliwaat seenub liggéey gaal gi doon bàyyi ko Ziguinchor di ñëw ndakaaru ak ndakaaroo ak Ziguinchor dana tàmbaliwaat liggéeyam léegi ONU yebal na ay eh, am ndawam ngir mu ñëw Sénégal xool crise politique bi lu mu ci mën ngir jàppale ñu ci conseil constitutionnel dindi nañ turu Rose Wardini aar sunu élection nee nañ nañ def élection yi la 3 mars date bi nag boobaak léegi dégguñ président wax ci koor gi la 11 mars la de te date boobu moom